dafa dem Paris gis Macron ak Elisabeth Borne nga xam moo nekkoon premier ministre France di négocier yenn contrat yu su toogee da koy changer est-ce que loolu dëgg la. mais loolu nee nañ nga wax. ñooñu ah. fi nga ko déggee. yow amul benn information quoi. dinañ ko dinañ la ko confirmer damay wax benn affaire rek gis nga. ñi nga xamante ne ñoo ngi attaqué président Macky Sall ñoo ngi leen di xaar de pied ferme am na lu luñ ci xam xam mais ñooñu il faut que ñu mettre leen en garde. di leen wax fii ne di leen wax fii ne. yaa ngi menacé de. président Macky Sall. il ne mérite pas certains agissements man maa ko wax il ne mérite pas certains comportements ñooñu nag bu fekkente ne xam nañ dara ci problème bi am peut-être diggante président Macky Sall ak Amadou Ba. nañ ko wax buñ ko waxee de toute façon ñun am nañ. lu ñu denc. damay continuer moo tax nag moo tax nag. li gën li gën mooy. ñoom ñu xam. véritablement raison garder président Macky Sall defal leen lu dul teraanga